dal leen ak jàmm ci info seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor leen ngir dara bañ leen raw. wàllum xibaar ba tey mbokk internet info 221 ñu àddu rek nag ci bile xibaar bu ñu eggee léegi jëm rek ci Fatima Wague. moom mi leen nag nekk bokk ci parti Pastef ñu tegoon ko loxo jot nañ ko daal di libéré sax ci ñu mu gën a gaawee responsable des jeunes patriotiques yu nag ca Tambacounda di Fatima Zahra Wagué moom nag jot nañ ko bàyyi ginnaaw ay weer yu bëri yi nga xamante ne daal di nañ ko teg loxo ci biir kaso yi jot na nag obtenir niki tey jii ci talaata bi ñaar fukk ak ñett ci weeru janvier 2024 liberté provisoire ci wetu cour d'appel bu Tamba parquet bu tribunal nag bu grande instance bu Dakar bu Tambacounda Tambacounda ñoo doj nag joxe boobee dogal ab fàttali Fatima Fatima Zahra Wade jotoon nañ ko placé sous mandat de dépôt juge d'instruction bu tribunal bu grande instance bu Tambacounda moo def rek lu nu mel ginnaaw bañ koy toppee ci lu jëm ci appel à l'insurrection acte de nature à compromettre la sécurité publique waroon na sax yàgg mun a bénéficier wu ci lu jëm ci liberté provisoire waaye parquet bi saa su nekk rek daf ko doon dàkkal ci woote boobee nga xamante ne ay avocat ñu ko doon sàkku toq liberté a fàttali nag moom Fatima Zahra mi jotoon nañ ko arrêté jamono jooje ak ñaar fukki yeneenu militant euh, parti Pastef bi ñu dissoudre te Ousmane Sonko nag doon seeni njiit moom mi nga xamante ni ak bokkoon na ci sax keneen euh, kii di euh, coordonnateur nag bu Tamba bu Pastef di Abdou Mbacké Samba donc mbokk yi nag Fatima Zahra Wagé jot nañ ko may nag liberté provisoire ginnaaw nag ba mu toogee ay weer yu bari nag ci biir kaso bi patriote bu mag nag boo xamante ne moo teewal waaye tamit jiite jigéenu parti Pastef boobee ah, ci lépp la nga xamante ne rek moo ca aju woon tey ji la doog a jot nag lu jëm ci liberté provisoire ginnaaw lu yàgg lool ay avocat di ko sàkku ci kanamu ah, ñiit di nag yoon nag ginnaaw uh, yàggaay boobee sax tey ji nag ci talaata bi lañ ko daal di bàyyi ñeneen nag ña nga xamante ne ñoom la àndaloon ñu ngi ci biir kaso bi ba nëgë ni